loolu ñun ak yéen journaliste yi mënta ñàkk. c'est vrai ndaxte ñoo bëgg ñoo bokk liggéey bi ndaxte seen liggéey pour ngeen fésal ko foog ngeen ñuy invité ñun acteurs yi. Mm-hmm. kon nag euh, yenn saa yi comme ni ñu koy waxee bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk mais yenn saay dañuy laale kon nag ñu laale mënul ñàkk. waaw ndaxte ñu bokk teen rek la seen i goj di fasante donc man jàpp naa ni euh, jaxasoo yenn saa yi mënta ñàkk mais yow sama sœur nga euh, di émission yu mag def nañ ko ba tàyyi. Euh, ci actualité bu riche Sénégal parce que Sénégal yàgg na nekk ci situation yi mu nekk nii. kon nag euh, vraiment bu ñu euh, amee tey waxtaan wu mel nii dina am solo may nuy également Moustapha ak Cheikh Ousmane nga xam ne ñoom it wax dëgg yàlla ay jeunes yu compétent lañ yoo xam ni damay am toujours mbégte bokk ak ñoom waxtaan kon am naa yaakaar ni internautes yi dinañ amati mbégte. jël seen temps di ñu déglu parce que temps dafa foor ci nit. Mhm. kon suy déglu nit euh, koo xam ni li muy wax amulu ko benn njariñ kooku day yàq temps kon nag ñi nga ñaan yàlla bu ñu yàq seen temps lépp lu fi waxtaanee yàlla na jur njariñ ndaxte réew mi fi mu toll nii askan wi soxna ñu defal leen ay jàngat yoo xam ni dañ koy lal ci dëgg kon nag incha allah dinañ wax sunu axulaay taala bañ a def benn parparloo ci li ñuy wax mën nañoo féete nag parce que dañoo féete tant que yaa ngi mel ni ku juum mais juumu. Mm. da nga ne Ousmane wala nga ne Sonko Jomaay Sonko Jomaay loolu mooy xew-xew bi parce que Ousmane mooy Jomaay Jomaay mooy usmaan donc benn la juumoo parce que noonu lañ ko tuddee kon nag euh, du lapsus ni nga ko waxee noonu la demee ndaxte Bassirou Jomaay Faye mooy candidat wu usmaan Sonko mi nga xam dañ ko jaay doole ba bokkul ci élection yi mais am nañ yaakaar daal euh, ci menu bi nga teg ci table ji tey pour ñu waxtaane ko Euh, wax dëgg yàlla yaakaar naa daal dina nekk émission bu neex incha allah. merci beaucoup merci beaucoup grande dame euh, journaliste bu mag bi. jàppite. c'est toujours un plaisir partagé yow plateau bi Moustapha maa ngi lay ziar di lay jox vraiment sa wàccuwaay. c'est partagé maa ngi lay ziar yow tamit njàpp di am mbégte à chaque fois di bokk ak waxtaan bi di ziar suñu grand dame moom yàgg nañoo toog bokk ay plateau yu bëri di ziar euh, Cheikh Ousmane ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jamono ji mhm. Cheikh Ousmane Touré sëriñ bu mag bi maa lay ziar di lay jox sa wàccuwaay. man moom la laa rek sama moom la sax leeral maa ngi lay fay ñàpp di la nuyu di la ziar di am bépp yéen uh-huh. nuyu sa invité bi muy Dame nga xam ne moom du gan ci kër gi mel na kër yi. c'est

nuyu internet Sunugal 24 yi. macha allah ci réew macha allah yàlla lu ñu waxtaanee kon mun nañu wax ne carrément waxtaan bi euh, ubbeeku na euh, ñu dem rek euh, si li nga xam ne moo nekk lu ñu fi boole moo nekk l' essentiel ñu dem par rapport ak l' actualité ñu waxtaan vraiment avec Dame mu nekk vraiment un bon client comme ni ñu koy waxee suñu jargon journalistique Dame ñu dooree waxtaan bi vraiment par rapport ak li nga xam ne moo nekk. nekk stratégie yi nga xam ne mun nañ gis ni mun nañ wax ne yéen euh, yéen ñi nga xam ne yéen mooy waaye lakkoos wala sax waaye coalition euh, Diomaye président euh, teg ngeen ko ñu ñu commencé si si li nga xam ne moo nekk ces deux vidéos préenregistrées yi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko premier bi mu indi vraiment mun nañu wax carrément tous les généraux ndax euh, personne xaarutoon euh, Ousmane Sonko vraiment euh, mu def format visio vidéo man je ko disais que la wala leneen mais Ousmane Sonko ñu gis ko carrément mu toog nii vraiment les gens se demandaient sax est-ce que euh, monsieur Sonko mu ngi en prison ñuy xaaraat deuxième vidéo li nga xam ne mun nañu wax ne euh, sénégalais yi yu bëri ñu doon ko njoxtu yi amoon na sax ay euh, chroniqueurs yoo xam ne ñu doon wax ne carrément le PASTEF ou bien Ousmane Sonko euh, dafa fas yéene côté li nga xam ne moo nekk ces élections ñu gis Ousmane Sonko mu mettre en avant vraiment le projet avec euh, tànn bi nga xam ne def na ko si la personne de Bassirou Diomaye Faye ba doon def vraiment benn analyse euh, sur li nga xam ne moo nekk fond ak forme bi euh, par rapport ak ces deux vidéos préenregistrées yu Ousmane Sonko ak tamit le choix porté sur la personne de de Bassirou Diomaye. waaw jërëjëf Ndiab bi nga xamee ni vidéo yi génn na. Mhm. man am naa ci sax ay reetaan yu ma si am ndax damaa gis beneen camp bi. Mhm. mooy camp système bi. ma dégg ci ñu naan lii intelligence artificielle la. Mhm. am ci ñu naan sax ci prison bi la ko enregistré. Mhm. Euh, bay sax commencé di tuumaal agent pénitentiaire naan xëy na dañ ko euh, dafa am complicité. Mhm. pour mu enregistré ko man ma ko déggee reetaan la ma def parce que lu nit ñàkk ñàkk ñàkk xam-xam xam ni vidéo boobu du intelligence artificielle parce que boo ko comparé ak bi bërki démb bu Karim Wade def rek. bi muy wax ak sénégalais yi moom Karim Wade. ci ñi xam man bi ma ko seetaanee rek bi may woo ki nga xam moom laay laaj toujours ci mbirum technologie. dama ne ko Karim moom lii muy wax est-ce que moom il moom mooy wax walla intelligence artificielle la man ma noo yow sax waxal nga ko sa bopp boo xoolee xam ko loolu jarul aay. parce que sa apparaît nettement euh, que c'est de l'intelligence artificielle du moom mooy wax naturellement. Euh, mais bu sonko bi wax dëgg yàlla ci ko xam vidéo. Mm. la ko wonee rek. jërul ngay aay pour xam ne moom mooy wax naturellement donc mu enregistré ko li leen yéem nag mooy nan la mën a waxee ay fait yoo xam ni. Mhm. six mois après la te bi mu koy wax kenn mënul woon xalaat ne noonu lay demee six mois après mu fekk ko ci kaso bi. mu mhm. wax ko mu mel ni ku taxaw di décrire liy xew. Mhm. te mu ngi ci biir kaso bi. loolu quand même jaaxal na Sénégalais yu bëri moo tax camp d'en bi sax. mais da ñoom dañoo commencé mel ni ñuy jëflu ndaxte mbir mi da leen a bett noonu mu leen bette nag pourtant noonu la leen yàgg a bette parce que Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xam ñoom dañ koy dañ koy xeex te xamuñu ko parce que booy xeex nit danga koy xam ñoom dañoo jël benn schéma bu ñuy xeexee seen i opposants yi leen nar a sonal ci élection bu ñu jëm même système de jeu bi lañuy def stratégie bi lañ adopté pour képp ku ñu yaakaar ni yi yin jëm nar nga leen a yàqal pour ñu éliminer la Macky Sall dafa ragal adversaire bi ko nar a sonal mhm. adversaire yi ko dul yàqal nag moom moom faalewu leen mais ki nga xam ne moom wuur na ko ni mën na koo yàqal fi mu jëm day def tout pour baare léegi nag mhm. mais bu koy baare dafa war a génne stratégie boo xam ne da koy adapté ak ki mbëgg a baare mhm. sonk nag ni ñu baaree yeneen adversaire yi ko jiitu muy xalifa Sall muy Karim Wade même stratégie bi lañ utiliser pour Sonko te ngeen seetloo bi ñu baaree Khalifa Sall amul candidat finalement. Hmm. jul jàll mais mu jul am candidat. ñu baare Karim mu mujjul jàll mu jul am candidat ñu baaree Sonko dafa ne même chose ay amaat mais xam nga wuute am lu tax wuute am mooy Ousmane Sonko du ñaar ñooñu. Hmm. ñaar ñooñu parti yi hmm. système bi moo leen meññ. alors que Sonko nekkul ci paradigme boobu Ousmane Sonko tegul ci politique loo xam danaan man la. Ousmane Sonko tegul boppam. ñee nag liñ teg seen bopp la koo ci jël moom buñ ko tegul mënta xalaat kenn ci entourage am ku mu teg parce que yorul ab projet moom moom la woo ay nit ànd ak ñoom alors Ousmane Sonko daa ànd ak ay nit wala sax ay nit teg ab projet woo ko ci loolu mooy différence bi <laughs> kon nag boo leen bëggee xeex te yamuñu doo aboutir au même résultat. Hmm. loolu mooy jafe-jafe bi nag Ousmane Sonko. li mu yore c'est un projet li nit ñuy fàtte mooy ña tegoon projet bi xalaat kook lépp ñoo toog xalaat profil bu ko mën a jiite ñun ko Ousmane projet bii nu yore moo ñu intéressé ñun sa profil moo ci gën pour nga ne ci kan waaye nag moomoo ko ñun ñëpp ko bokk boobu nag li nga xam moom lay dawal mooy bëgg a soppi réew mi pas bëgg yow ñëw ni maa koy jiite moo tax bu ngeen xoolee ci bi muy euh, def première vidéo bi nga xam ne foofu ma nga fa doon annoncé lii xew hmm. wax ne dañ koo nar a éliminer dañ koy tëj hmm. kaso te loolu six mois avant la mu ne dañ koo war a dan e, jot na ci weewu bëy parce que Ousmane doon na may information yi leer nañ que moom dañ koo bëgg a tëj kaso pour tas partem boobu bi mu hmm. koy wax kenn tëjag koo kaso kenn tasagul kenn tasagul partem kenn demagul pare parrainage te wax na ci yëpp wax na ci tëj kaso bi te boobu kenn tëjag ko wax na ci tas partem wax na ci buñ demee ca candidature ya daanu jaare ci parrainage euh, éliminer ay candidats injustement hmm. mooy les recalés hmm. ba ni leen ci biir vidéo bi bu ñu leen recalé nañu def benn say nañ àndandoo parce que li ñu war a ñor mooy defar réew hmm. ba noppe nag wax ni man waajal naa lépp ndaxte sama bopp taxuloon may xeex réew mee tax may xeex te ci yeneen vidéo yi ñëw bu fekkente ni ñoom bu ñu muusoon sax da xam ne boobu lool mu ngi waajal ne bu bu fekkente ne li muy njort defuñu ko du génn vidéo yi parce que loolu il faut nga xam ni waajal lu ñëwagul dafa bokk ci stratégie. Mhm. boo xoolee ki nga coupe d'Afrique bii ñu nekk sénégalais yi yi yéen éliminé nii l'équipe du Sénégal bi ñu éliminé boo xooloon ci seen i valise maillot champion bi mën nga ci. Mhm. dañ koy defar yóbbaale. Mhm. booy dem da ngay yóbbaale mayo champion bi. mooy t-shirt champion bi ni sol ci digg terrain. champion d' Afrique. champion d' Afrique bi équipe boo ci jël même ñeen éliminé premier tour ca seeni valise mayo baa nga ci mais loolu dafa bokk ci stratégie doo bàyyi ba nekk champion doo ko sol Ousmane Sonko nag loolu la def maintenant boo nekkee champion sol ko boo nekkul champion doo ko sol Ousmane loolu la waajal ci vidéo yi da koo waajal ci biir vidéo yi wax ni lii may wax yal na yàlla def ma bañ koo teg mooy suñ ko jàppul woon tasuñu parteem jaay ñu ko doole. Mhm. kon vidéo yooyu da mhm. mais da koo waajal xam ne ñii foofu lañ jëm lool mooy intelligence ausman mhm. mais la ca am importance. mooy boo jëlee premier bi kon ni nga ko waxee yi mu abordé yëpp moo nekk di daw nii. bay wax sax di lancer un appel à l'opposition wax ne daañu leen recalé ba noppi nag deuxième bi mu nga xam moom lañ tuddee le choix mooy kan la tànn bi kooku tamit mu wax yan critère moo tax mu tànn ko. wax waa parteem ni leen tànn ma ko ci par parloo naam sama xarit la tuddan tudde na ma sax doom waaye la tax ma tànn ko critères yii la te moom moo mën a jéggil projet bi ndëgg sërëx bi ñu ko tegal moom moom mooy tawu projet bi hmm. parce que projet bi moom a ñor ça veut dire looy loo jàngati ci lool mooy Ousmane Sonko bu ñu leen nee wuute na ak ñeneen ñi rek war nañ ko mun gëm parce que bu doon boppam la day boycotté parce que loolu moo fi mës a am depuis du rek ci ay Karim Wade xalifa hmm. Sall de même Ablaye Wade ay boycotté élection lañ daan de bu ñu demee mën jaay leen doole. Mm. dañuy boycotté ñii nag dañoo jàppoon Ousmane Sonko du am candidat te loolu du pouvoir bi kese de même opposition bi opposition bi ñu bëri ci ñoom suñu xamoon ne Ousmane Sonko buñ ko jaayee doole parce que loolu moom opposition bi ñu bëri man xam naa ay candidat de l' yoo xam ne dañ la doon wax boo jàkkaarloo ñoom ne la yow waa ji du dem élection de parce que daa am lu leen déet mooy candidat opposition bi nga xam mm-hmm. ñoo ko waa ànd. léegi ñoom li ñu jàppoon même opposition bi su ngeen gisee candidature yu bëri gaawante dem déposé dañu jàppoon ni ñenn ñi dawaloon nañ benn relation bu ñu daw ak waa Pastef ba gëm comme li ñu leen gëmloo ne Pastef du am candidat. Mm. dañ doon yaakaar ne bu ñu déposé seen candidature bu ñu éliminé Pastef dañuy mën a capter l' électorat de Pastef. das fanaan quoi. waaw dañ waaw dañ doon yaakaar ne mun nañoo jot électorat Pastef comme ni ko nguur gi gëmee maanaam Macky dafa gëm mais xam nga Ousmane est belliqueux c'est vrai parce que Ousmane boo ko defee parce que du du ragal te Macky Sall kuy moom da koy ñeme bu la nee tépp nga ni ko tépp mais li nga xam ne moo ci moo ci am nag mooy Ousmane Sonko naa moom boo ko day day taxaw jël responsabilité am mais moom jiitalul boppam ñoom boobu lañ andiwul boobu boobu paramètre lañ fàtte dañ jàppoon ne buñ ko éliminer rek moom léegi dara dootu am après lui y a rien alors comme projet la yore. te projet bi gouverner Sénégal la bëgg à partir de deux mille vingt quatre kon moom mu jiite projet bi ak Bassirou Diomaye jiite ko ak keneen a ci yem moo tax même li mag Sall di jéem nii pour jéem a jaay doole pour xëy na daan ñëwaat ci euh, biir waxtaan yi ñàkk a xam toujours euh, euh, Pastef day ñëwaat. Mhm. sa nit boo koy xeex da xam nu muy xalaate xam lan la gëm xam ban taxawaay la am xam ban stratégie lay teg xam nan mooy gis-gisam. xam fan la jëm te Macky Sall yii yëpp xamu ko. moom li mu jàpp rek mooy la daan xew mooy kon ne xew moo tax fi mu nii ni muy jaayee doole Pastef moom la doon jaaye doole ñeneen ñi mais loolu tax résultat yi mu doon am ci ñeneen ñi. mënu mhm. ko am ci Pastef parce que Pastef ak ñeneen ñi yamuñ. mais daam daam man buggoon naa ñëw tamit ci profil yi xam nga.